xamal leen li jaaduwul ak li jaaduwul tey nag ñu ngi indi xibaar bu yéeme lool te doy waar trop ci bile réew lu tax xibaar boobu doy waar lool te yéeme lool dey sëriñ si yoo xamee ni ñu ngi fii Sénégal di jëf ay jëfin yu ñaaw yoo xamee ni kenn ku nekk ci ñun vraiment dina ko ñaaw lool ndax yenn saa yi sëriñ nekk jëm boo ne ni doomu aadama képp la waaye dafay dem ba bëggate boppam jinne wala dafay dem ba bëgg a boppam dem ba bëgg am yenn ci ay maxaam ba tax moom sëriñ boobu day jël ay mbir yoo xam ne ni mbir yooyu méngootul ak jëfi doomu aadama mu dem ba di ko jëf mu nekk ay jëfin yu ñaaw ñaaw ñaaw ndax sëriñ bii li mu jëf kenn mënul wax ni mu ñaaw na mu toll li tax mu ñaaw te na mu toll moo di nii sëriñ bi nekk na ci benn quartier mais nag di def ay xeetu ñaan di laata ay ñaan ak yu ni mel nekk moom dara bi mu soxla pour def ñaan mooy dara boo xamee ni jigéen dafa gis mbaax mooy dafa gis reegal ba dara ba topp ci boobu la kotoom moom dara boobu la soxla pour mën ci def daa da ci bind li mu war a bind xoolal ma jooju la jëf ju ñaaw léegi nan la koy defee moom kër gi mu si moom ci boppam jigéen ña fa nekk la fexe ba xamal leen lu mel ndax bu ñëwee ci moom di ko liggéeyloo mu xamal leen la ma leen di liggéeyal pour seen jëkkër yi nopp leen pour seen jëkkër yi bëgg leen pour seen jëkkër yi duñu sëy ak beneen góor bu dul yéen faw ngeen indil ma seen deretu maanaam awra mooy sax boo leen gisee ragal ba noppi deret bi nekk ci coton bi ngeen indil ma jooju la deret su ko defee deret bi laay def daal toqal ko di ko ci bind su ko defee ngeen mën di ko jëfandikoo jigéen ñi daal di nangu loolu ndax xam ngeen jigéen moom lépp loo xamee ne dafa jëm rek ci ci ci ci néegu sëyam ci kenn gi mu kenn jëkkëram bëggul am wujju yu nu mel xam ne koo fonk loolu moom jigéen taxawaay yooyu rek la ñu am ñoom du ñu gis mukk li bon ak li baax. jigéen ñi fex nañ di ko ko indil moom mu doon ci liggéeyal ay liggéey moo xam baax na moo xam baaxul dem na ba jigéen ñi nag xamal ko nekk yenn ci seeni moroom comme xamal nañ ko yenn seeni moroom léegi nag sëriñ bi dafay faral moom ci boppam di jënd nag loolu nga xam ne moom mooy coton bi nga xam ne su jigéen gisee ragal ba noppi coton boobu la ñuy indi def ko ci mbuus ñu jaay ko sëriñ bi deux mille francs lañ koy jaayee sëriñ bi gis ngeen. ni sëriñ bi nekk moom li mu bëgg mooy jigéen ñi bu ñu Sénégal ba noppi dara boobu topp ci seeni coton ñu di ko ko jaay mooy di ko def euh, euh, bind euh, daa di ko bindee léegi koñ ba jigéen ñëpp ku ci gis régal ba noppi rek da ngay jël régal ba coton ba def ko ci mbuus daal di dem sëriñ bi daal di ko jaay deux mille francs mais li nga xam ne moo ci gën a doy waar ci siwaar boobu mooy sëriñ bi jot na ëmbal maanaam sëy ak jigéen ñeen du toll foofu fukki jigéen ak benn am na ñu ne déedéet ci biir gusu bi ñu ne juróom-ñeenti jigéen képp la waaye ñaar ne mujj ñoo am doom ndeke est loolu muy jël ci ñoom di leen liggéey ci lañ leen di noote day xool ki gën a jongama ci ñoom ki gën a ci moom mu fexe ba liggéey la fexe ba mën a àgg ci yow ko ak yow mu nekk xibaar bu yéeme te doy waar boo xam dëkk gi mu amee bu mu la ko waxee tey da nga jàpp ne xaalis boobu yépp sëriñ boobu am na ci seen cër ci seen soxna yooyu kon gis ngeen jëf ju ñaaw boobu nga xamee ni boobu la sëriñ moom lay jëf te loolu nag bari lool sëriñu Sénégal yi dañuy jënd jëndalu dañuy garaaw garaawlu ba dañuy jël ay mbir ni ci la bëgg ne yow ci lañ lay liggéeyee nga bëgg ndax sénégalais moom boo koy liggéeyal te la ngay liggéeyal garaawul ñànguloo dafa yëfu jinne jaaxaloo ko du la gëm. bu fekkee sénégalais moom noonu lay jëmee kon loolu lépp li koy indi moom mooy topp sëriñ su bari si ak sa réew mi ñu bari seen kenn ku ne ne maa mën maa mën mu nekk histoire bu yéeme te doy waar am ci lii nga xam ni Sénégal bii la tout près daan ko sari kon jigéen bi war nañoo bàyyi xel baax ci seen bopp waaye bàyyi xel bu baax ci sëriñ si nga xamee ni ñoom la ñu jëflanteel ndax sa nit boo xam ne tas na lu toll ci fukki sëy ak benn ëmbal seeni soxna ci lépp ndax jigéen si bëggu bëggu lañ topp loolu daana ko jigéen ko yàgg waxee rek émission bi njariñu askan bi la ñoo ko tax a jóg pour kenn ku ne mën ci jële ay njariñ mais lépp bu leen fàtte di abonné ci chaîne bi ndax loolu doon na suñu dimbal doon seen dimbal numéro boobu nekk ci ban de l'écran bi bu muy seen numéro saa booy ci wootee rek di ngeen mën a jot jërë ngeen jëf